asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy safoo si 313 digital site qui vous donne des informations fiables leen di leen wax ne leen euh, dal leen ak jàmm tey nag dañoo daal di ñëw ngir waxtaanee ki nga xam ne moom mooy euh, maam Ndiaye Savon ak waa euh, Jamra ci fàttali rek maam Ndiaye Savon moom mi moo daal di organiser woon li nga xam ne moom mooy any time maanaam li nga xam ne xale jigéen ñi jamono ji moom lañ jël ci buñ leen takkee wala buñ leen di waaj a takk maanaam. am dañ koy def tey ndiki ëllëg ñu daal di leen di euh, tàkk ñu gis ki nga xam mooy Mame Ndiaye Savon moom mi nga xam ne euh, sëy na 10 euh, ans soog a def li nga xam mooy anytime bañ ko laajee euh, lu tax nag daf ne carrément euh, que ne ba muy euh, sëyi maanaam anytime xewul woon loolu moo waral mu def ko waaye tamit mi ngi wax que ne daf koo def juste ndax diw yi nga xam ne wala savon yi nga xam ne mi ngi koy jaay pour bégal ñi nga xam ñoom ñooy ay fansam gis nañ Mame Ndiaye Savon ni mu virale ci réseaux sociaux yi boobu noonu nag mu def dafa daal di jur ab polémique gis nañ euh, Mame Ndiaye Savon euh, di lëmbal bay wane li nga xam ne moom mooy euh, mini beccoom mini beccoom ba ñi nga xam ne internautes yi di ko lancé bu baax a baax ci euh, réseaux euh, sociaux yi loolu nag la waa jambra daal di euh, gis maanaam Mame Ndiaye Savon ni nga xam ne doon na ko def ci bile temps anytime di wane ay cëram te moo gis ne ay xale yu ndaw ñoo ko wëroon di ko filmer loolu yëpp te ku ne xam ne ne waa Jamra ñoom mën naa ne société bi lañ fi nekkal képp ko xam ne def nga loo wóor def wala loo xam def nga ko te l'islam nanguwu ko ñoom waa Jamra dañuy daal jukk jug euh, taxaw euh, temb daal di ci euh, wut li nga xam ne moom mooy daal di ci dugal seen loxo bu baax a baax moo waral ñu daal di woo ki nga xam ne moom mooy maam Ndiaye Savon pour wax ko li nga xam ne li mu def ak li ko ci mën a fekk maam Ndiaye nag daal di jéggaluwaat ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Jamra ak ki nga xam ne ak ñi nga xam ne sax ñoom ñooy Sénégalais yi Mame Ndiaye Savon mi ngi leen di jéggalu bu baax di wax ne li ni mel dootu ko fatité dootul amati waaye gis nañ ki nga xam ne moom mooy maam Mactar Gueye moom moom nga xam ne moo jiite waa Jamra moom naka daal dinay sermoné daal dinay sermoné ki nga xam ne moom mooy Mame Ndiaye Savon di ko delloowaat ci yàlla suñu borom waaye tamit di ko wax ne ko di ko delloowaat yàlla suñu borom di ko wax li yàlla bëgg ak li mu bëggul moo waral Mame Ndiaye di jéggul bu baax a baax ci fàttali rek gis nañ xam ne moom mooy Ahmed Cissé rek dañ ko di ko séddalee euh, ci euh, jàkka yi li nga xam ne moo ko ci fekk euh, jamono ji mi ngi foofu noonu ca prison ba rangu tamit gis nañ ay ay jamono li nga xam ne doon na ko fi def ci ay lëmbal ak yooyu tamit waa Jamra tamit am na liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko ci kon nag loolu lañ bëggoon def ki nga xam mooy Mame Ndiaye Savon waaye maam Ndiaye dafa leen daal di jéggalu di leen wax ne leen li ni mel dootu ko defati te dootul amati te ña ko ñëpp baal kon fii lay wàcc teewee eh, sama ay kàddu di leen joxaat eh, dig daje eh, ndikki ëllëg ci yeneen i information waaye nag bu leen fàtte di abonné si 313 digital